Pokola Baldé la mu ngi noonu moom Pokola moom Pokola Baldé la Pokola Baldé dugg si na Pape Pokola dugg si na xam nga Pokola lan la yéeg. dégg nga Pokola ñëw na de. ci lan la yéeg. ci sarat. lii fas de Pape. waaye ci ma la yéeg ci fas. lii fas Merkel la Merkel. Ah? am nga berkel. berkel. berkel mooy lan du mooy fas. doomu fas ak mbaam. ah. <laughs> moom la yëg. <laughs> kon loolu la kon moom Amady yow yaa ma gën a xam man. da ko war a xam. ah naa ci réew mi nga dëkk Pape da ko war a xam. waaw loolu moom la. yow yow yaa ma war a jàngal mais jàngaloo ko. Pape doo Joola Soose. Ah? nga bañ ni doo dégg olof. non man naa olof kay. loo dégg ci olof. naa lépp de. séeréer laa déglu séeréer rek laa déggul. pourtant da ngaa war a dëkk séeréer de. waaw non su. ndax ngi ngi néew nga dëkk. waaw loolu am na non euh, fële euh, Gossas laa dëkk. Gossas Malick Fatick. waaw mais Fatick rek Fatick rek Fatick laa dëkk Fatick. ngi néew du Fatick. ngi ngi néew Fatick waaw soriwul nag de mais Fatick mais gi ngi Kaolack la bokk Kaolack la bokk. ngi noonu di dugg si booy pousse leen. Pokola na Papa Ndiaye. fas la Pokola ngi noonu dugg si yéeg ci fas moom Pokola mu ngi noonu ab masque la def bët yi kenn gisu ko xool ko yéeg na ci fas wa Pokola Baldé cey Pokola fas wi de suur na moom Pokola ngi noonu yéeg na ci fas wi cey Pokola moo bari fitna xool ko pokongi jàmbaar la de loo wax booy gara pokola mi ku baax la bilaa walaay daa bëgg ay waajuram waaye yàlla ko yàlla may ndam rek bilaa walaay daa bëgg ay waajuram bilaa walaay yàlla ko yàlla may ndam waaw góor booy pokola balde noonu dem na ba ci digg terrain bi mu taxaw wala day saafonteeg tribune bee Pape wàccal Pape kaay loo wax lii mooy berkele waaw ba pare nga ni fas la berkele parce que berkele du benn berkele ay berkele du benn de Pape Sarr ngoog mais Pape Sarr ni ngeen dugg see nag. ah ni ngeen dugg see dafa garaaw. dama ne la bu nekk Pokola moo mën. côté bu nekk nga wax de. bu nekk Pokola moo mën. ci doole yi man. lépp moo mën Pokola moo mën. xeex ak bëre. lépp moo mën. biir wu rëy. Pokola moo mën Zarko na préparé bu ñu génn. waaye yow ki nga wax waxu Zarko laay wax man waxu Zarko laay wax. waxu Zarko laay ah? waaw. billaay Pokola moo man barki yàlla. comme que ni Pokola day daan Liss Ndiago. non waxuma waxuma gëm naa dama ne la sama gëm-gëm laa wax Pokola moo mun Liss. billaahi. waaye grand combat bi Sa Thiès pare na de. ñoo ko gën a pare. ñoo ko ñoo a pare. Pape yaa ngi wax bëgg-bëgg de. de saa suma rakk la. champion la. aduna du neex ba ma minimiser ko mais day bëre ak ndaanaan. voilà waaw kii nag day ñëw yenn si parce que maa daan sama ñaari yoon. waaw loolu lay ñëw indaale rek ñun ñu xaar. te nee na du bëree loolu li ko xelam jox lay bëree waaye nag attention de mbër kaamil. waaw ah, mais Aziz namm naa la. maa la raw. yaa ngi ci jàmm waruma wax ak yow démb. la bëgg dañoo taxaw nga gis ñu di ñu di mel ne ku ñu gisul loolu. démb démb lan la. non non non da ngaa ñun ñu bàyyi télé yëpp ñëw ci yow bëgg la. wala bëgg. ah yow li ngay wax ci làmb. yow sama nga. mais la Lamine ana suñu xarit bi nag. <laughs> fi ci moom laa jógee jàmm waaye sant rek. nu ngeen waajalee le cinq. li ñu koy waajale mooy dem ci jàmm daan ci jàmm ñibbisi loolu lañ ko waajale dem ci jàmm daan ci jàmm ñibbisi ndax xale bi dañoo won yar ñu ko wax dara. xale bi yéen ngi koy magu de. magu wuñ ko de xale la xale da nga koy teral dañ koo bëgg a teral rek. waaye nee na ci biir kéew bi moom ko mu yooyu de day dal seen kaw bu arbitre eggee ngay xam ne màggat mu fanaanal mburu bokkul ak màggat mu fanaanal mburu ba suur ba prince a ngi noonu prince moo ngi noonu xool ko prince a ngi noonu xale yi dañ koo bëgg de nañ koy gis xale yi dañ koo bëgg bëgg naa la gara prési fans club prési naa bu baax maa yaa préparé na yaa gis stade bi tey nu mu mel nii. stade bi noonu la mel mais xel mi ndax noonu la mel. non xel bi tranquille ama seen moom macha allah le moral est bon préparé ni mu ko war a préparé entraîné na bu ñëwee léegi di nga gis waaw. jour gis gis nga ay entraînement yoo xamante ne assisté ko ko mu joxe comme non dal na sama xel ama seen dafa mos a dal sama xel chaque combat day jël affaire bi au sérieux entraîné nu mu war a euh, dans cinq minutes di nga gis état physique ama seen. jour ji rek la ñuy xaar la cinq incha allah ñu def comme ñu doon def yàlla may ñu ndam bu sedd guy. bëri Sa Thiès pour yow yomb na. non non bëri ñun tàmm nañu bés bés bés du mag du rëy ci ñun daal tàmm nañ ko daan Bombardier daan Balla Gaye deux fois daan Gris Bordeaux def naa Sa Thiès ah ama seen desalutuñ dara. Sa Thiès xale la de. xale la mais dara xale bu fekk fi mag bu toog u diñ toog am hygiène de vie. voilà merci. waaye Baba Mbengue nga Alaaji Baba bëgg naa la. maa ngi nii. yaa ngi ci ci leen maa ngi am jàmm bu baax. ñu fecc. feccal ba mu neex. man man Mbaye sama maan fecc. yow deful la neex. nan ngeen nar a ñëwee dimanche. tey dañoo bëgg bu ñu ñëwee ñëpp xamaat ni waa Pikine jàppuwaat nañu ànd nañoo nekk booloo nekk benn te incha allah rabi dañuy ñaan yàlla ëmma seen jël ndam li lépp ubbeekuwaat bu soobee yàlla incha allah. am nga ci yaakaar sa xel dal am naa ci yaakaar Lamine yow amoo ci yaakaar. ah man kay dama man kay amu ci yaakaar ci kenn ñoom ñaar ñëpp pare nañ am nañ doole mën nañoo bëre mën nañoo xeex bëgg naa ñu xeex nag ba ñoom ñaar ñëpp dem ardo ñu ñëwaat bëre kële meer gañ léegi daal man li may ñaan Eumeu seen yàlla na daan Sa Thiès jël bu rëy rëy bu boobaa sañ nga ko bu sañ naa ko kay parce que doom Pikine laa am déet waaw merci beaucoup. kontaan naa ci yow sañ nga ko nga dam nu mu demee da ngaa tiit kuy tiit ah tit fu mu ne. analyse ñàkk. gisuñu ko xamuñu ko. aywa. gan. nga ne gisoo leen. mais dimanche nan ngeen dara ñëwee. lam affaire dëmm la. ëpp def li de baaxul. buur buur bëgg naa la. waa Lutte TV ñu ngi leen di ziar ba. namm naa leen waaw namm naa leen. kañ ngeen ko def si waat. waaw plateau bi dañ ñëwaat de. dem ngeen Lutte TV toj. sëriñ woowee rek ñu ñëw fa. mais ñëw bi fa ñëw dafa dafa ala daw mi ndax li ko waral. waa waa YouTube dafa ñëw sargal leen lu mag a mag a mag loolu ñu kontaan ñun ñëpp muy fierté Sénégal waaye tey li ñu indi tey fii ku ne xam na ne drapeau Pikine ñun les jeunes communicateurs de la banlieue ñoo initié drapeau bi pour képp koo xamante ne mi ngi bëre ñu ñëw yëkkati drapeau bi ñu jox la ko. waaye nag mu tombeek jamono ji ñuy wax ci ci Pikine naan Pikine dafa jaxasoo ñiy wax Pikine dafa jaxasoo nañu bàyyi Pikine te xam ne pikin dafa jaxasoo ñu bàyyi pikin te xam ne Pikine li Ndongo loo daan way naan benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar nañ ñu bàyyee Pikine ni mu nekkee looloo waral tey Eumeu Sène mi nga xamante ne mooy seen mag ñëw ànd ak Pokola ni ñoom ñun ñoom ñaar ñooy bokk benn open press kon loolu mooy waral ne Pikine gars yooyu wax ni rek dañoo xaajaloo mais Pikine benn bopp la kenn. Ah, mais loolu mi ngi soog am Pikine de. xam nga lii mi ngi doog a am Pikine waaye nag ñu gërëm ci kenn muy Pape Sarr Pape Sarr barki démb la jël drapeau. Euh, tuddee ko ki nga xamante ni mooy Ama Balde nga xamante ni keroog bi mu koy tuddee dañuy soxlawul dërëmu Ama Balde mooy bu dajaloo Pikine bi rek la bëgg kon kooku boo ko xoolee muy dem daanaka bëgg Pikine moo nekk moom kon euh, nañu bàyyi Pikine daal te xam ni ñun Pikine jàmm rek lañ xam benn bopp la kenn mënu ko xam ñaar. c'est la Pikine kii kay. c'est la Pikinité. c'est la Pikinité loolu la wax. en ah, père yow loolu nga wax c'est la Pikinité maa ngi lay la ziar. waaw maa ngi leen di fay di kontaan ci seen teewaay fii waa Lutte di nuyu suñu doomu ndey Serigne Baye waaw di wax comme vous le rek ñun pikinité la ñuy dund lii def ni muy nouvelle ère boo xamante ne ni dañu ko ñëw ñoom ñëpp ñu concerté wu bokk ndey ak baay li foog naa li c'est une première muy entre Eumeu Sène doon seen mag si ñoom Boy Niang Amba Baldé ñoom Sokku ñoom Pokola ñoom ñëpp ñoom Jacob Balde ñoom ñëpp ñu ànd bokk ndey bokk baay lii lu rafet la ñu xam te ni Pikine na moom moo am solo ñu ciy gërëmaale suñu autorités yi Pikine a commencer par le premier magistrat de la ville monsieur Abdoulaye Thimbo le président AS Pikine le DG Omar Sow des grands trains du Sénégal ñu ngi remercier ñëpp ñoom Thierno ba xam ni daal Pikine daal moom moo ñu soxal ñu ngi remercier ñëpp di remercier encore une fois waa TV merci beaucoup waa Lutte TV jërë ngeen jërëjëf déedéet déedéet déedéet Cheikh Loum damay tooñ bëgg naa la gars yi maa ngi ci jàmm waaw toogee ni mel ni ku nekk seddaay waaw doo xaw sedd nag de daa tàng yaram tàng waaw doom ñoo aye may la cinq du yomb de waaw ah, mun sax war a sintu waaw Sa Thiès neexul dara de ah Sa Thiès mooy loolu Sa Thiès ñu yéemuñu Liss Ndiago bëggul jàmm de Liss Ndiago yéemuñu pour ne yàlla ñun Pikine nekk bébé la ñooñu jaaxaluñu. bébé bu am doole gros bébé. non mënut a am doole bopp waa doole. sa gros bébé la. xoolal mu toll. soo xoolee am xool pox am xam ne pere nan ñu pere nan bu yàgg fu mu toll nii mercredi la ñuy xaar daan ànd moom dimanche xam ñu boole yëpp si ñëwaat Pikine fii si bile ko. mercredi kuy bëre. Thiatou fa euh, Thiatou Boston. Ndiaga Ndiaga Diop la ñuy njëkk a ñaanal yàlla may ko ndam lu sedd guy ñu ànd moom xam nga dimanche ñu demaat defaat loolu ñëwaat fii feedaat ko fi incha allah. gannaaw la xew. waaw man ma wax Sa xam nañ ko Sa Thiès fu mu méttee day daw wax ji moo fi nekke rek làmb yu mu jël yëpp xam naa ne bii moo nekk làmb capital ndax ñoom seen génération muy rëg-rëg muy Franc yooyu ay jaal jaal lañ fii amul lool de fii xare badar moo fi nekk. xare badar jërëjëf xare badar pap kii mooy Faram 2 Faram 2 kii du Faram Touré kii Faram 2 param dégg ni maa ngi lay bëgg bu baax di la ziar. maa ngi lay dolli bëggee. maa yaa ngi ci jàmm. alhamdulilah nga nekk param duñ la gis ci làmb ji. tey moom dama laa séen rek ni waa jaa ngi ne rek mais lan moo tax bu nga bàyyee làmb ba léegi doo ñëw ci làmb yi. waaw ginnaaw bu sant yàlla julli si yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wasallam na li nga wax euh, amoon naa benn pause dama nekkoon si benn mission boo xam sama liggéey moom ma su ma liggéey moom ma téye woon dara maa ngi Sénégal gii voyage ma fenn mais liggéey bi ma nekkoon moom ma téye woon ay at. Dimanche ñaari doomu Pikine xewle muy Eumeu Sène ak Pokola tey ñu gis nga dagg sa yi tey ñëw open ci open press bi pour doole leen ñaax leen naka nga leen di ñaaxee ba keroog arbitre di kenn seen diggante ak ñi nga xamante ne ñooy seen adversaire. waaw ni ma leen di ñaaxee li ma waxoon démb laay waxatee rek Pikine dans l'histoire dans l'histoire Sénégal fi lamb boo waxee lamb mënoo si génnee Pikine Pikine wax naa ko ki dem sa benn gars mooy laaj interview bu fekk ma fi may liggéeyee ma ne ko ñun nga xam ne doomu Pikine lañu jàng tuuti taarix histoire Pikine ma ne ko comme dañu nekk doomu Pikine jàng Pikine laay yaa are paas histoire mag mbëri démb dafa am bës ko sow am forêt du suba am Fallaye Balde nga doog a wàcc si papa Diop façon jëri laa suñu papa bi des fii ñu ne génn nañu àdduna yàlla na yàlla yërëm leen xaar àjjana suñu pap pap Diop moo fi des yàlla na yàlla dolli kattan yàlla bàyyi ko si kanam ndax mag baax na si réew waaw moo tax bi euh, biñu jugee foofu ma may la benn affaire rek li te gis nga dama bàyyi sama lépp sama liggéey sama lépp wane ni man Pikine waa laa je suis fier de Pikine waa boo demoon soo yi may liggéeyee daf may liggéey partout dans le monde ñu ngi fa dañuy toog gars yi dañuy wax di wax ba dëndee jóg ci sport nax mais xam nañ man Pikine rek laa ba ñëw foofu damay damay jël ay ay ki di wane ti di wane drapeau Pikine kon Eumeu Sène euh, vrai si Eumeu Sène wax Eumeu Sène dañoo dund man ak moom ànd yàgg ànd ba mu nekkee booy boobu sax Eumeu Sène ak man xalaatuñ sax làmb dina egg fii si làmb tey kon barki dem wax naa sama benn gars ma ne ko Eumeu Sène mi ngi doo ko nekk si digg ndëndam waxuma pour Pikine laa dëkk de Eumeu Sène mu ngi dugg si carrière bi nga xam ne u xamul làmb mun na bett ñu bëri lu gara laa lay wax. kon yow sa xel dal na ci Eumeu Sène bu baax a ma ndax bu amee xel dal Eumeu Sène nee naa dama ko xam Eumeu Sène entraînement daf ko respecté Eumeu Sène dafa sérieux hygiène de vie bi allah te Eumeu Sène làmb lu mu laa da koy jox moo tax combat bi surprise mun na si am lu garaaw garaaw Eumeu Sène boo dafa teel a bëre bu teel a bëre moo mag booy yi mais dafa teel a bëre ndax. moo tax bu ñu ko bëggee yóbbu bu ñu ko bëggee yóbbu foofu ma dégg gars yi di wax. dañu Pokola xam nga kii bi beneen. waaw Pokola euh, ma jógee si foofu Pokola tamit li ma leen waxoon barki dem ma ne booy ñun bàyyi nañ bëre mais bu ñu bëggee bu ñu bëggee carrière nañuy xool si Eumeu Sène di jàng si moom ñun mën nañ di leen conseil bu ñu dajee ak ñoom bu ma seetlu lay conseil mais ñoom bu ñu xoolee si Eumeu rek mën nañu nekk ay relève gis nga bari gis nga démb booy gis nga gis nga démb gis nga démb gis kon ñi il faut ñu nangu tamit yaa relève demee ni fi grand yi nekk woon ëmma seen ñëw man ma ñëw ñu bàyyi bëre ak ñeneen ñeneen sportif fair play après booy yi dañuy nekk relève ñoom booy ñaa ñoom ama après ñoom poxala après ñoom soq après ñoom jacob ak ñeneen booy yi xam ne mun naa tudd du jeex lamb noonu la kon booy bi tamit euh, si loxo yi mu nekk am naa si yaakaar si sport laa mais dama si Pikine am naa si yaakaar ndax suñu grand Gilles Balde ku am fulla la ku xam Jules Baldé ndax dafa bañ defet moo tax ku mu encadré li ma rek boo ko dëgëree rek mun nga am résultat. kontaan naa ci yow di waa Pikine ñëpp di wax waa Pikine li ma waxoon démb laa wax sama sama sama sama message nañu nekk benn du tee ku nekk li nga war a li nga war a nekk mun nga ko nekk mais du ñu jàppalante li ñoo c'est la force ndax Pikine ba Pikine bu woon démb ñun booy yi grand yi màggoon ñoom Tyson ñoom Ndiaga Diop ñoom Babo ñoom Pape Cissé ñoom Letifaar ñoom Baba Diallo gars yi ñoom baaba baaba ñoom kii ñoom Paala Diop ñun si grand yi lañ doon jàng grand yi bu mu san génn dem mbapat wala génn làmb xam lu ñuy wax waa Pikine ñu ngi ñëw seen fitu dal Pikine bu ñu mànkoo rek dañuy téye làmb ji dañuy jëlaat seen place. kontaan naa ci yow. waajal fooy. kooku mooy Fadam 2. Gibson. naa fi yow. na nga da ngay leetu. Lamine doomu bettee nii waaw. da ngay dañuy leetu kër duñu leetu. mu seen. mi yoon bi. dégg seen leet yi Sa Thiès tax ngeen dindi ko da ngeen a bañ mu jàpp. donc actuellement xam nga xam nga xam nga suñ dem umra bi moo tax ñu dindi ko quoi. waaw dem umra bi moo tax ñu. man da ngeen doon bañ Sa Thiès jàpp sax. non Sa Thiès bu si jàppee sax dañ koy daan loolu moom bul sax sonn incha allah rabbi si kàttan yàlla. ama oh, pare na. loolu nga wax nànk ah Doudou Sane lan la def barki Demba Ndiaye démb sax laay wax. non non lambu Doudou Sane bi kenn mënu cee nattu nit ku pare parce que egguñu foofu noonu. pare nañ ci côté bu ne. si kàttan yàlla pare nañ ci contact yi pare nañ ci lépp lépp lépp lépp loo xalaat pare nañ ko. saa kees du mu fi indee